nañu xool nag seen waxtaan ca biir palais ba nan la histoire bi demee ngeen xam ne nag moom mooy xew-xewu jamono ñu seeti farba ana farba farba ngi nii <laughs> eh farba <laughs> jaay waay eh Pierre am na benn musique buy dugg sama nopp am na benn musique buy dugg sama nopp waaw am na musique buy dugg sama nopp de xaw ma ban musique la farba moom ngi nii voilà léegi nag eh, Adja Adja Mbaye waaw maa ngi maa ngi dem pale waaw bu soobee yàlla nga wakkee eh, ne ko waaw Adja yaa ngi may dégg maa ngi dem pale jërëjëf seeri koko bu soobee yàlla incha allah kaar woo sama aaw bi allo debbo jaaraama min ko farba ngom e eh, jaaraama woo naa léegi eh, Adja wax naa ko yow danga génn waaw boo boo ñëwee rek ngeen di defal ma supp bu baax dégg parce que seddaay baa ngi commencé ñu baax na nga waxtaan ak Adja ca war na nga dem marché moomu togg <laughs> jaaram Adja kon maa ngi jëm mbay sa alhamdulilah yóbbu sama dossier yi palais président Macky Sall moom woo egsi naa palais bi sala la xam naa ne maamu Sall le mu ñëw su ko defee ñu toog <coughs> kool bismillahi rahmani rahim bandiraɓe na fi yàgg ti wér ànd ak jamono yàlla defal ko teraanga àddina kenn gënu ko eh, fay na nga def fay fay jàmm rek Abdoulaye Faye yaa ngi ci jàmm ah bien alhamdulilah sant yàlla rek alhamdulilah nga ni mais monsieur Ngom dafa am lu bëggoon nga bàyyi ko quoi waa Fatick yi dama bëgg ngeen bàyyi leen tout tranquille quoi waaw yow waa Fatick su ma leen di bàyyi eh, yow yaa ma koy wax. ñoom li ma leen wax foofu. dana xoolal man damaa caaxaanul quoi monsieur dama bëgg nga bàyyi waa Fatick tout tranquillement chaque jour Fatick Fatick Fatick topp yi waa Fatick yow mais yow yow yow yow man man jël. présidence dañu man kilifa du ma wax ak yow wax yu ñaaw bàyyil wax ji daal pour da ngay kaf wala da nga nekk sa dëkk. man kafuma de kafuma dama ma sax bay bëgg kaf quoi dama bëgg. xoolal ne me forcez pas à sax. yow man booy yow kon lii lii may wax nii ak yow nii da nga ci mer ci li ma tax a wax waa Fatick loolu da ci mer. man romb naa mer romb naa mer ba ma mer yàgg na quoi. waaw booy. dama bëgg nga jël Fatick nga def ko quoi quoi Fatick Fatick ci moom laa bëgg nga bàyyi ko quoi chaque jour Fatick Fatick Fatick qu'est-ce qu'il y a. eh yow lan nga def Fatick quoi. eh booy. booy. non xoolal su may toog di yaa ma ko. non non tu vas s'asseoir on va parler. duma taxaw taxawal fii ci bureau Mamou Saleh la. xam nga lu yow war ma wax sax ngay taxa du wax man. je te dafa naan dama la wax. monsieur Farba damay wax man wala bii damay dama écoute écoute ma du ma sa morom damay wax. du ma sa morom damay wax je parle damay wax du ma sa morom. monsieur Ngom xoolal. damay wax attention da nga def damay wax damay wax ba mu neex monsieur Ngom teel a bañ a wax. non damay wax qu'est-ce que xool waaw waaw. non non dama bëgg nga bàyyi Fatick monsieur Ngom dama bàyyi ma tuuti chaque jour Fatick Fatick Fatick monsieur Ngom. teeku teeku teeku teeku teeku teeku teeku tee ko maa la gën a maa la gën a calme billaay dina xam ne man je suis quelqu'un boo xam ne tu vas regretter cet acte man dama sa borom sécurité yo pousse ko pousse ko mu dem pousse ko mu dem di nga xam ne maa la gën a qu'est-ce que ça veut dire attends man man dama ko faat libéré ko na génn kii soo man je suis quelqu'un. yow dinañ dajewaat yow. fu ñuy daje. yow da nga ne man je suis pas quelqu'un de ma teewati tarakom. gisagoo dara. je te jure. sama takk oh, damay sumeeku laaw ak sama bayu. damay sumeeku laaw ak sama bayu. damay sumeeku. sama bayu damay sumeeku. ñawal kan kam nga ne man du ma ko fooy. yow yaay kan. dama bëgg mu xam ne man du ma ko ragal tey ragal ma ko man noobul la député la à l'Assemblée nationale. kam lii nga ba def na alo waaw Adja Mbaye rajo yi dañ ko commencé wax man moo ma tooñ man moo ma tooñ billaay moo ma tooñ séeri koko maa ngi ñëw léegi maa ngi lay expliqué ma tooñ man kay dafa mel ne dama ko kamoon sax moo tax mën a ngeen toggal ma sup sama yaram bi yëpp kay maar de taal jaaraam neel ah, aawo wi na dem marché dugg yow na nga defar supp bi kii tas naa yaram bi waaye man tamit àtte bi tooy na wax jërëjëf man du ma tàppet du ma bukkot lii ñu def fii sax dama ko méttitlu ndax moo ma tooñ keek nag day bette mun nga keek ci stade mu bett la mun nga keek ci kaar mu bett la mun nga keek ci tata mu bett la mun nga keek ci Sorano mu bett la mun nga keek ci Grand mu bett la mun nga keek ci Palais mu bett la mu metti la billaay dalay bett dalay metti waaye dootu ko dolli de un petit kala directeur comme ça Macky Sall woo leen pour wàcce leen wax leen ne leen rek mu taxaw bu ma ko sippee boo defetee ma su meeku